jafe-jafe di wéy di gàllankoor mbayum ceeb ci delta de la vallée du fleuve Sénégal GIE DBDB dund ci ay fitna yu metti yoo xamante ni mi ngi jëm diggante picc yi nga xamante ni yàqu nañu yooyee ci ay tool waaye tamit wàllu inondation lii yépp ci ay mettit ñu daal di koy jël jël baaraamu tuuma bi joxoñ ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sayed jàpp rek nii taxawaay wa ñu waroon am loolee nag dafa des. jafe-jafe bi gën a rëy tey mooy alal ji nga xamante ni si ni dañu ko jëlee ci banque ba. mu toll ci 49 millions 49 millions yooyu baykat yi yaakaaroon liggéey delloo ko lépp ci tool ndax ak inondation bi nga xamante ni si nii euh, daf fi daf fi nekk euh, loolu bokk na ci suñu jafe nga si a ñi nga ni dañuy ci zone bi ñi fi a producteurs yi feytu ci seen taxaw seen taxawaay ba mu mat loolu gisuñu ko fi euh, di ci giital sayet bi nga xamante ni si ñoom la ñuy teg ci côté technique euh, ñu waroon ñëw taxaw producteurs yi euh, conseiller leen taxaw li nga xamee ne mooy récolte bi loolu dañ ci dañ ci yéex a taxaw ba problème yi nga xamee daf ñu gane si yëpp ci ci ci foofu la soxe ko parce que man dama jàpp ni buñ la jëlee teg la ci kanamu producteurs yi nga nga nekk nga nekk ki nga xamante ni si yaa di gérer ci côté technique bu bu faay amee rek sa kaw lay dellu parce que producteurs yi waruñu woon am problème euh, ci lu toll ci cinquante chaînes yi nekk fii ni au niveau de base bi ci SAED ñu war ko séddale jox ko béykat yi joxuñu leen ko loolu bokk na ci première feebar yi nga xamante ni si ni moom moo fi nekk jafe-jafe bi gën a mag. jafe-jafe récolte yooyu taxoon sax ñu doon euh, dem di seeti jii ñi nekkee ci wàllu yi ngir nag ñu jàppale leen ci wàllu machine yooyu waaye loole yëpp rek ay jafe-jafe la mujj yokkaat ndax nag la nga xamante ni moom moo di wàllu rendement tool yooyu nga xamante ni picc yi doot nañ ko fëgg bu baax a baax loolu yi tax na nag ñoom mënuñu sax fay ay bor ba loolee tàmbali juraat yeneen jafe-jafe diggante ak prestataire yooyu lee. di dem ci zone Mauritanie dafa def intervention di ñu indil ay ay chenilles yi nga xamante ni si am nañu ko pour ñu def intervention yaakaar nañu jàppale baykat yi. Euh, fekk alors que dañ leen di lor parce que li nga xamee ne moo des ci tool bi mu mu ñu war a producteurs yi war ko génnee euh, tool bu xamante ni si vingt cinq euh, saag lay am trente sac mënul fay borom parce que cent quatre vingt mille cent soixante cinq mille la ñuy fay ci hectare bi bu ko defee producteur bi du delloo dara te loolu kenn ku ne xam na ni mënul fay boru boru tool bi producteur bi fi mu nekk nii am nañu jafe-jafe instant bi nii lii nga xamante ni si mooy dugal njaboot gi ci ci géej gi ñuy dem mën nañ ci dugal bu fekkente ni si président Macky Sall taxawul parce que nous demandons wuñu bor bi nga xamee mom lañu financer ñu financé kese li ñuy demandé mooy bor bi nga xamee mom lañu financer ak li nga xamante si la njabot gi wara lek parce que njabot gi buñu ñu amul lu ñu dem parce que euh, fini autosuffisance en riz fi la ëppee woon euh, ci zone débitiguette parce que dañ daan bay compte saison hivernage loolu manatul nek ndax bor yi nga xamante dañu nek suñu suñu kaw kon il faut que ñu taxaw setlu bay xam li lan la euh, président aussi ñoo ki koy demandé njaboot gi nga xamante ni si dañuy xiif amuñu li lek waxuma fay bor de ñooñu na leen taxawu

yii yiile ci ay jafe-jafe tàmbale jur sax yeneen ci wàllu crise naka la ñu nam dundee dundinu askan wi ëllëg loolee nag doon tey li nga xamante ni tàmbale na jaaxal kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo faree ci diwaan boobee ndax nag lépp loo xamante ni yàgg nañ koy dundee te it mu di seen i activité mi ngi aju woon ci mbay mi waaye ak yàqu-yàqu bi xamatuñu nag fan la ñu war a jëm ak moom. ku dul président de la république ak ñu mu àndal ñu jàppale na parce que baykat amul doole. amul benn doole doole mooy tool kon su tool bi amul dara kon béykat amatul dara te dëkk baa ngi nii li la président wax moo ci nekk fi mu toll ni soo demoon tey am na ko fa nekk di defar kayit chaque jour ci la yenn bu ñu dem tëni rek di góor di jigéen nag bu fekkoon góor ñi rek a dem sax daan mais jigéen ñi sax ñoo ëpp ñu ñuy dem te li mu wax li président waxoon léegi sa njaboot bu xasee génn sa loxo sécurité amatu mu di góor mu di jigéen jigéen ñi mën nañu dem Espagne wala ñu dem feneen góor ñi kenn waxaale ko ay jii nag seenu kàddu ñuy tàllal loxo nguuru Sénégal ngir mu ñëw wallu leen ci lépp lu jëm ci wàllu seenu dundin lépp lu jëm nag ci wàllu fayu bor loole ñoom waxuñu ko waaye la ñuy xamle moom moo di naka lañu ñu mën a def ngir nag lépp lu jëm ci wàllu crise alimentaire bañ leen sonal diirub nag ñuy àggaat ci beneen jamono ci wàllu mbay yi. dëkk yi sonn nañu lool fu mu nekk nii moom eh, li ñu lëkk moom la wax. lu ñuy dëkk li ñuy wax fay moom waxuñu wax waxuñu waxam ndax nit ki moom balaa nga fay di ngay dunde ba pare léegi nag assurance bi xamante ni moo toogal fii euh, banque ba te moo toogal fii béykat yi essayé nañu tool yi ñëw nañu xam nañu gis nañu jafe-jafe ba waaye assurance ñun ak moom dañu am benn jafe-jafe ñu jël benn tool à 100 pour cent ñu dem ba ci biir ñu ni tool bi dañ koy jël 10 pour cent wala 15 pour cent loolu moom euh, ren moom ñu ngi xaar assurance moom ñu ngi déglu su su ñu ngi koy déglu teg sunu nopp heure bu ñu ñëwee wax 50 pour cent wala 60 pour cent tool yi ñu ngi fi tëdd dañuy dem ak ñoom ak moom yoon. may Sall fu mu nekk nii instant bi sonn nañu loolu wax dëgg yàlla béykat sonn nañu sayet aussi dañu leen ñaax ci loolu parce que mën am ay machine toll nii béykat di problème ñun duñu am DT1 DT2 jëbantu ñettee boo leen boolee dañuy dañuy dañuy ëpp dañuy ëpp casier bi te benn machine sax mën ñu am ci ci pour mën dimbale béykat yi fii sonn nañu loolu wax yàlla lii nag li muy wax naan autosuffisance en riz ñun autosuffisance yi daañu ko changé def ko autosuffisance en gaal daan dem ci kat loolu daan ko def daan def parce que bëgguñu ko woon ndax boobu ñu ngi liggéey fay di delloo mais nag loolu amatul léegi amatul nag daa solution bu ñu def jafe yi ajowoo ci mbayum ceeb di nak nag di fi nga xamanteni modi ci delta de la vallée du fleuve Sénégal ñi di GIE début de b dal di jël senu wàll mu ay tool yu bari yo xamanteni lepp rek dañu ko abandonné ngir nak lepp lo xamanteni ni doon nañ ko ci xaar ci walu rendement loola gisunu ci ko ca ndax nak li di walu inondation yi walu picc yi ak yenen eh, xeeti yaq yàqu ñoo fa jaar ba tax rak ñi nga xamanteni ñom ñoo baykat amatuñu nag lii di courage ngir mën a wéyal liggéey boobule.